sewar cour des comptes yek Ousmane songo wax na ko ci kiyam ba xana dinañ ci dik déclaration bobu wax na li yor ak yoy japp nga né gaay dañu dañoo lu bare ak yoy ci déclaration bobu non mo waxé non waaw man dal lima xam moy dëkk bi mom ñi ngi fi gaañu xamoon nañ leen bu yagg ah ñu jekki-jekki nguur ñew ci seeni loxo xam nañ ne nguur gi da nga koy liggéeyal di nga ci am avantage ay oto di nga am avantage ñi lay fay salaire yi di nga am avantage waaye yenn milliards yet nag wax dëgg yàlla ku jubal te liggéeyal nguur na nga ko war a liggéeyale mënoo ko am dégg nga léegi nag gaañi nag moom bari na ci ñoo xam ne tey jii suñu waxantee dëgg li ñu yor ci ay kër ak i oto ak ay xeetu maanaam budget bi ñuy doxe danga xam ne lii ab salaire mënu ko li nga mën a jàpp nag mooy ak luuba ko def koko ci wax nak mune ne waaw dañuy pelantu dañuy li dañuy la way nak ba pënd bi wuri rek pënd bi wuré dinañ xam deug deug lan moy mbir mi parce que ay kur de compte ak yoyep wax am lu ko gëna graw té nañ dem ba ci kanam tuti, da nga deug da nga gis lo xamné ah kenn du ne loolu de mom moy nek luy luy sababu ñu dem kaso waaye dana ci bari ño xam ne seen gannaaw dana tang jeer parce que nak dana am luñ yor lo xamne ay ay ay ay ay ay ay ay deli lay nek yo xamne ci seen fonction lay nek te dinañ ko dinañ ko dinañ ko leral ci kanamu yoon parce que man lool la japp parce que luubal yi moom ci jëm ci suuf ak jëm ci yu ba dafa bari lu bari la waaw yi ñu ci dégg sax ma yi ñu ci déggut wóor na ma ni moko gëna a bari waaw waye nak ñun ñu ngi déglu parce que dégg nañ ministre de la justice dégg nañ premier ministre président Ousmane Sonko lam wax tayit it xam nañ ne. Euh, dëkk bi moom yoon a fii dox loolu moom leer na nañ. Euh, Macky Sall danoo gis ñi ko gënoon a sonal looy ci wàllu communication wàllu politique ak yooyu doon na leen ñaar la yore woon mooy xëpp ak xëpp ndax mas na laa ko pour ngeen nga wàññi ni nga doon def wala ngeen négocier. waaw loolu nag xam nga moo dox yi du ma faral naan waaw man lii dugg naa ko fii génn naa ko fii man am na ñaar yoo xam ne du sama jikko mooy waxal nit lu bon ku ma miin xam ne loolu mënuma ko am na nag ñoo xam ne dañuy dem ba yegg faak man ku mel ne ay Moustapha Jaxate léeg-léeg ma wax leen lu tàng jër waaye fekk da ngay xam ne ñii dañoo dem ba dab ba jot ko ba ko daal parce que ñoom ni ñuy doxee la daal moom mooy def loolu waaye man euh, maanaam mu neex ak man bari na lu ba lu méttee méttee métti dund naa ko ci chronique yi may def ak état bi may attaquer yu metti ak yo xamantene yu raglu la yu raglu yu bari yu ma xam waye nak du tok toog publiquement di dénoncer musuma tok privé manam tok ci dem ci fenn di perte plainte wala dara man damay jot ay mana a loolu sax même bu ko waxut yow war nga ko xam manam menace de mort nit ñew sa kër sax di ñibbi ñu topp ko xam nga napp ko bañ ba mu yegg këram di ko war a naan la daa am ñaar ñu ma toppoon bi ma ñëwee sa kër nangam na loolu du jeex daanaka mais mais man faalewu ma leen am na benn jamono ñi may xuppee sax dañoo yor say vidéo ci jigéen man xam naa ne xam nga vidéo ci jigéen moom ko ku ko yoral da nga xam ndax da nga xam ne <laughs> dem naa bërëb sàngam war nañ ko mën am waaye bi ñu ñëwee li mu bëggoon ma naan waaw ko yor samay vidéo génne leen ko man damaa ñëw rek ne leen waaw mi ngi man daal réew mi ñoo war a bàyyi ay diw da yor vidéo ni nii wax waxe ci no xamne ne dama leena wone wan ne man faalewu ma dara parce que boba sax bi may do ko wax ñu bari dañoo no xij baara mi da mel ne yor ay vidéo <laughs> man boba xamna <laughs> xamna ne aduna du yag ba nit gene sama vidéo mais mais dama ci doxé no xamne ne bëgguma dem di taskiyee sama bop dal xam nga nit ñi euh, dañu gaaw ci taskiyee seen bop man du moy yalla man du def nangam ñun ñep ay jam rek dañ man nañoo dem ba moy yalla sax di ko ñu koy def loolu du problème mais ab état mo wërtan top nit ñi nan legi kii di ki di chronique ni yor naa video ma yor muy video man foofu laa waxee rek ne même bu yoree samay video wuro koo yore dal même nag bu dee ci côté xëpp xaalis geet loolu Macky Sall bari na bari na fu jaar maak moom waaw ci affaire proposé xaalis ak lu bari bari na ay jar jar yu a bari a bari waaw euh, waaye dama ciy doxe ak mat dal ak mat gu mat sëkk go xam bu ëllëgee du dox manam ba am ben xeetu yabel wala xeetu reetaan go xam Macky Sall dana mako def ba ko ko jege seedaloo ko yàlla keroog korité gi gii jàll mag ndom ba ñoo julleendoo eh, eh, masalikul jinan kérok bi ñuy nuyoo mi ngi ci kanam ñom Mabouba Diagne ñi ngi tok ak Cheikh Diba sax ministre Cheikh Diba ministre budget bi ma nuyo lim ma ñëkkat wax ci ñom ñi ngi koy dégg mais xamuñu limi wax mu ne cey li nga dëgëré bop ak lima dacc yow voilà ma ree rek ne ko ah loolu garaawut daan na ko waa ana xaalis bi jox ma xaalis léegi mu ñu ree mu jeex fekk loolu ay wax la entre ak moom entre ak moom la moom moom moom moom daanaka xaw na maa wax ne moom moo nekkoon ministre chargé affaire Cheikh Bara <laughs> ah moom Thierno Thierno Thierno moom mu xaritu Macky Sall lenqe la benn bakkan yaakaar naa yéen du ngeen ko xam du génn ci télé yeeg yooyu mais Macky Sall da ko fonk daal mission yu bëree bëri da koy doxaloo maa ngi bari na bari na bari na bari na ay waxtaan ay jaar-jaar yu jaar yoo xam ne ni pour mm, waaye nag day nekk loo xam ne man ak mat laa ma sa doxee rek boo ma enregistré li may wax ci télé bi laay wax. boo ma boo ñëwee seet ma li may wax ci télé bi laay wax bu wéetee li may wax laay wax bu ñu ko parce que moo tax man en laisse laa ci nekk. voilà lenn lañ ma mënoon def mooy tëj kaso baa ñaar yëpp nag géem nañ ko yàlla dogal na benn sottiwu ci.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 yu wér te wóor